asalaamaaleykum Mbacke sab géewe lay nuyoo ku réer turam nag Babacar moo di aw turam mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaare ñëwaat ci seen jataayu xam sa gént fii ci seen site bu mag bii di 28 pro ñu ñëwoon ci ginnaaw di leen leeral yu bari yu aju ci wàllu gént ak yi koy waral waxoon nañ leen mbirum diine jeeg yooyu wax leen mbirum rab mi koy waral xam naa kon dañuy ñëw ci mbirum rawxaan nga xam ni doomu aadama ju ne dafa am nu suñu borom bindee am na sax lu ñu ci leerloon ci yee jàll waaye dañ ko junjoon rek ndax mbokk yi rawxaan dafa nekk loo xam ne suñu borom li mu bind lépp ci la ko bind ndax buñ xoolee àdduna ni yaatoo suñu borom ndox la fi wàcce ak suuf ak ngelaw ak sawara ñeent yooyu moom la ñuy wax nataxamu muy naar yu turab yu hawaay yu ak maay yu bu ko defee nag doomu aadama ju ne def cee am benn bu mu doon waxoon nañ leen comme groupe sanguin yi ni mu demee nga xam ni nit ñi may na mayante deret donte ñoo bokk ndey ak bàyyi léeg-léeg duñ ko mën a mayante nga xam ni groupe sanguin loolu mooy rawxaan tabixa bi ñu bind nit ki bu ko defee nag kenn ku nekk sa tabixa mooy doon sa température wala sa tempérament bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi ci tubaab ndax da ci am ñoo xam duñ dégg wolof dëgg-dëgg jamono ji léegi wolof yi daa xaw a raar waaye li ma bëgg a wax mooy nit ki nim mel ak façon wam rawxaan bi moo koy définir dañ lay wax nit nga jël turam ak turu yaayam rek mën a xam kii ban façon nit la ndax dafa gaaw a mer wala ku ñàkk décision la wala ku dëggu la wala ku mën a nëbbu la wala koo xam waxkatu dëgg la yooyu yëpp danga koy xam ci tur nit turu nit ak turu ndeyam ak turu baayam loolu day yegg ba ci bu ñuy sëy ñuy wax ni ñaar ñi ànd na wala àndul léeg-léeg wala di wax ni dafa ay gaaf fekk ni ay gaaf amul waaye ñaari gaaf yi mënut a moo am ndax bu ñu seetee baax baax ndox ak sawara boo leen boolee rek sawara yu fay kon sawara ndox ay ci moom gaaf waaye boo boole woon sawara ngelaw rek sawara yu boy waaye ndox it boo ko boolee suuf it gàncax génn kon loolu moo am nit ñi dañoo am ay tabiha yoo xam ne ci la leen suñu borom bind ku nekk biddiw bi nga juddu dafa am lu muy jeextal ci sa jëmm ndax borom xam-xam ngay doon ndax borom wërsëg ngay doon ndax borom bayre ngay doon ndax ku siiw ndax ku bari affaire ngay doon yooyu yëpp ci biddiw bi ngay juddu ndax watil kal ayyaamu nu bis yi day wëndeelu rek ci doomu aadama yi li wolof di wax ne tey yow la ëllëg sa morom loolu bu ko defee jant bi dafa mel ni comme dafa am burju yu muy dugg ci asamaan si mel ni ay xunti ko defee nag loolu wasama isaatil buróoj dégg ngeen ko ci alxuraan wax na ci lu baree bari ak wasam su tajiri li mustaxari laa lu yooyu burju yooyu jant bi di dugg di génn dafa am burju bu nekk lu muy doon ndox bi nekk sawara bi nekk ngelaw bu fa duggee am na biddiw yu muy àndal biddiw yooyu muy àndal ci burju yi nag mbokk yi mooy jeexital ci nit ñi ndax bu duggee ci kër gi fekk yow kër gi sa këruk alal la bu fa dajeeg biddiw bu lëndam alal ji day am jafe-jafe place bi am problème bu fekkee sa biddiwu sëy la sa këruk sëy la dugg nga xool ni sëy bi kon moo am jafe-jafe bu fekkee dafa lëndëm day am problème bu fekkee dafa leer nga xam ni sëy bi kon baax na bu fekkee biddiw tukki la bu ci duggee buñ ko xoolee mu toll sa biddiw tukki dañuy xam bu lëndamee tukki bu baaxut wala bu bu tukki bu demee dina am jafe-jafe du sotti bu fekkee biddiw tukki bi leer na dañuy xam ni kon bu demee dina baax yooyu yëpp dafa am biddiw yi itam juróom-ñaari benn bu ci nekk dafa am lu muy doon bu ko defee biddiw sams mooy biddiw dimanche moom wàllu nguur ak yooyu xam nga fan yi ñi ngi ci wàllu di xëccoo ay njiitu réew yooyu gis ngeen coow li bari na waaye ñi ñu doon topp bi ñuy at mi doog a dugg ci tamxarit gi waxoon nañ leen ni ren at mi talaata moo ko moom muy biddiwu marix deret ji tuuru dina bari tàkk-tàkk li dina bari waxoon nañ leen tam sarax bi nga xam ne moom lañu waroon génne muy ñetti ginaar bu ñuul ak bu xonq ak bu weex waaye nag bu xonq bi moom la talaata ji moom muy talaat muy amar bu ko defee ginaar gu xonq mën na ko bëy bu xonq itam mën na ko loolu mooy tax deret ji tuuru jeeg musiba yi nga xam ne moom lañ natt ci at mi mu war a wàcc nga mucc ci ndax suñu borom maa ngi wax ni léegi-léeg nga dégg sax wala fii di wax ne loolu dëgg du yàgg waaye dëgg ak caaxaan ñoo fi ñëwandowoon te ba adduna tukki ñoo fi jógeendoo iblis daanaka yonent yeeg nit yàlla yu bari moo leen fi njëkk ñëw moo leen mag kon te moom li mu nekk du dëgg kon moom lu dëgg yàgg na wax dëgg yàlla bu ko defee nag maanaam dëgg maanaam noonu rek lañ koy xame xam ni itam wax dëgg yàlla jàmm du nekkul lu ñuy ñaan ci aw làmmañ rek waaye jàmm mi ngi ci topp njub mooy jaar ci dëgg boo defee nag sarax yooyu noonu dina nekk luy fànq yu baree bari waxoon nañ leen ko ñi nga xam ne doon nañ topp ci njàlbeenu at mi waxoon nañ leen ko fi toll nii nag kon li gën a jàmp mooy ginaar gu xonq ko ko mën mu def ko tuur deret yàlla mën naa dogal yàlla def jàmp ndax loolu luy feeñ la rek loo xam ne lu feeñ la te at mu nekk dafa am suñu borom lu mu ciy namm bu nammee at mi neex wala mu namm balaay bari wala yu mel noonu yépp day am dégg ngeen Serigne Saliou bu yàggu rek daana wax nañ saraxe na nañ sàkk sarax nañ tuub nañ jégalu ci yàlla def tawasul daana wax yu baree bari yooyu nag yam daan xam ñun duñ ko xam nit ñi duñ xam lu tax mu ko daan wax waaye yu mel noonu rek moo daan tax mooy gis ni jaam ñi kat am na lu war a ñëw ci ñoom loo xam ne du gën mu tinul leen boroomam wax ne nañ tawasul nañ sàkk sarax kon bu ko defee mbokk yi loolu ku ko mën a def ba tey weesagut ndax at mi jeexagut yomb ci élection yi kese te gis nañ ni bu yàgg ba léegi deret jaa ngi tuuru tàkk-tàkk yaa ngi am yàlla na yam foofu yàlla na gën a gën a wàññeeku bu baax a baax yàlla sax bu mënee ñàkk yàlla na ñàkk waaye daal ñu wax li ni loolu rawaan yi ak biddiw yi ñoo ni muy doxee moo koy waral bu defee wax naa leen biddiwu dimanche mooy biddiwu nguur ñi nga xam ne ñooy xëccoo nguur geeg yu mel noonu loolu mooy seen biir ba tey biddiwu xamar nag maanaam bu dee kuy tukki tukki bu gaaw te bëgg a dem ñëwaat léegi am xéwal bu dàkkee saxaatu xamar maanaa dina baax donte biddiwu mustari yi mooy biddiwu tukki dëgg-dëgg moom bu ko defee eh, maanaam biddiwu xamar marix moom laa leen wax ne mooy biddiwu biddiwu ceddo yi moom la gisaanikat yi di wax séefar mooy tàkk-tàkk ak lu mel ni nga déggu ñaan journaliste bu mag dana faa toog yooyu yëpp yooyu moo koy waral biddiwu journaliste yi la seen seen biddiwu noonu la loolu moo tax day day feeñ ci ñoom day am gaaf ñoom kenn ku ne dafay gaaf ci kii mu nekk xéewal ci moom moo ñuy wax ay waay foo fekk ñuy dëj rek am na ñuy ngénte noonu la adduna tëdde tëdde loolu moo tax léegi nag biddiwu àllarba mooy biddiwu journaliste yi mooy biddiw boo xam ne boo ci jàllalee message day jàll ki ko amee day nekk maanaa day nekk koo xam ne artiste lay nekk ku mën a dessiner lay doon ku bëgg àdduna lay doon sañsakat koo xam ne day mën a wax ku éloquent yooyu yëpp biddiw yi daf ci daf ciy jeexital ki nga xam ne nit ñi xam da koo doon loolu da ciy feeñ waaye bu ci jamono ji tolloo itam loolu day fees ci jamono ji bu biddiwu àllarba ñëwee nga jàllale message message bi day jàll force nit ñi dañ koy dégg parce que loolu da cee kii moo tax sax ngay gis mu ñuy jàngale daara ñuy dalal dongo bi àllarba parce que àllarba ji loolu moo day biddiwu jàng di biddiwu sëriñ misaal xamas wax naa leen ko mooy biddiwu mustari mooy biddiwu tukki biddiwu mbay la biddiwu yaxantu la moom mooy kërug nëf mooy kërug wërsëg noonu la biddiw yi tegaloo ajjuma moom mooy biddiwu bayre biddiwu soxrat biddiw bu leer boobu noonu moom foo ko amee day day am bayre jigéen jigéen ñi dañ koy bëgg ñoo koy gën a jublu ci góor ñi ba noppi waaye cat da ko yomb jàpp bu ko defee samedi moom dafa lëndëm soxal la dafa ñuul dafa ceddoo moom la ñuy wax léegi yooyu yëpp ci ne dafa am ay jeexitalam léegi nag nit ki faaw mu jéem a xam moom mooy kan ci yooyu dañuy wax ne xam-xam bu dee mel na nga xam sa bopp nit ki bu xamee rawaxaanam dina xam moom liy ñëw ci moom ak nu ciy ñëwee ak lu ko gaar dina xam nu muy demee ndax suñu borom dañuy wax noppi na comme noppi na nag léegi nag bis yi mooy wëndeelu rek lu ñëw rek ak li war a am daal di am waaye suñ borom damay wax ni boo jëlee mboom mi teg jël essence teg ci kos teg ci mu tax suñu borom xarut ba nga def ko mu ñëw di dogal waaye daa def dogal bi ci ci almet yi def ko ci essence bi def ko dajewul jàmm mën naa am waaye saa bu ñu dajee li xew xew loolu mooy dogal yi nga xam ne suñu borom daf koy def ci rawaxaan yi kon nit ku ne war naa fexe ba xam rawaxaanam ak ndax dafa am xarin ban tot wala ban àndandoo la am wala rawaanam yan sarax la bëgg xam saraxu rawaanam ak yan sarax la war a génne pour liggéeyam ndox wala pour mu mucc ci noonam wala pour mu am jàmm yooyu yëpp lu ci ne dafa am lu koy jeexit ak loo xam ne moo ci taxaw moo tax nag ñuy wax ne xam-xamu biddiw sax bëgguñu ko koy jàngale parce que bu tasee rek ci àdduna mën na indi jafe-jafe parce que nekkul lu ñëpp war a xam nekkul tam loo xam ne lu war a yaatu la ndax day dem ba nit bu xamee te gëmut yàlla day defee ni moom biddiw ñooy dogal wala ñooy atte te boo bokkaale lay doon waaye suñu borom moo jël mbiram tënk ko noonu nga xam ne boo jëloon essence bi sotti taali mu tàkkit da nga xam ne suñu borom a ca ne rek waaye bu ko neexoon du tàkk waaye nag da koo neex moo tax xaarut ba nga ñëw nga naan bu ko neexee bu ko neexul bu ñëwaat di ko dindi waaye loolu ni nga koy déggee mooy yaanaaru koo nii bardan wasaawan ba ko suñu borom di wax sawara wa ci suñu maam ibrahima sawara waa nga fa di tàng di def la muy def lépp waaye ba ci ibrahima duggee lëkku te boo ko woon bardan ni ceel waxut xalaa ibrahima kon day sedd faw waaye daa sedd wax ibrahima waaye wasalaaman dem ca teg itam boo xoon bardan sedd bu mën na koo gaañ loolu moo lay wan ne suñu borom lépp lu mu bëgg def mën na ko waaye nag dafa amul jot ñëw ci àdduna nii nit ñi li liñ mënal seen bopp suñu borom da leen koo bàyyee ñu di ko defal seen bopp liñ mënul rek la leen yàlla defal fi mu ne liir bii doog a judd sax bu juddoo rek ñu ni nañ ko raxas wala nañ indi yére ndax dafa ñëw ci loxoy nit ñi waaye bi mu nekk démb ci loxoy yàlla kenn wutalu ko woon yére kenn waxul woon dafa socc waxuñu woon dara ko dal newuñu woon dafa tàng te suñu borom ko yoroon boppam kenn xamul la ko doon defal lu mu doon waaye bi mu ñëwee ci ñi rek ñu commencé di wax daa soj ak biir bi day metteeg nañ ko nàmpal ak nañ wut lii jox xamuñu fu mu ne woon juróom-ñeenti weer fu doon dund loolu mooy wane ne suñ borom lépp lu nekk ay loxoom ba ci rab yi ne ci àll bi sax ne ci loxoy suñ borom kenn gisagu ci rab bu ci war am doom ñu opéré suñ borom moo leen yoral boppam yi ñoo ëpp nit ñi fop waaye fi mu ne nit ñi gis nga biñ demee bay def liñ koy waxee scanner la xaw ma comme échographique di jéem a xam doom ji nu mu tuddee ak nu mu defee moo tax léegi opéré bi gën a bari waaye bi àll bi gën a yaatu sax nit ñi di amee doom yi ci kër yi ci la ci la affaire bi gënoon a néew loolu moo lay wane rek nit ñi lépp lu ñu borom da leen koy bàyyee di seetaan waaye luñ tëlee ba nekkoon ko nag yaa fi sës nit fi ne bu faatoo bañ teg ñu daal ne suñu borom rek ci sës moo tax dañ koy daal delloo suñu borom kenn amatu ci pexe loolu mooy li wane ni doomu aadama suñu borom li mu mënul waaye nag lépp lu mu mën moo koy jóg defal ko boppam mooy wuti xaalis mooy jéem a mooy jéem a lekk mooy waraasu te teewut ñëpp suñu borom leen dundal faat jotee mu faat leen waaye loolu lay wane ni rek tawhid mooy wane ni yàllaay def lépp waaye wali kulli say in sababun kon xam naa buñ ko toppee mën na gën a gudd waaye daal liñ bëgg a wax rek mooy nit ki ku nekk war na jéem a xam raw rawxaanam xam tabixaam jéem a maîtriser boppam jéem a xam moom mooy kan lépp lu ñëw ci moom mu xam maanaam nu mu koy maîtriser ak nu mu koy téye ba ba du am jafe-jafe bu xamee jamono ji xolam yu tàng ak jafe-jafe yi ñëw ci moom rek dina mën a sàkk sarax dina mën a téye boppam dina xam itam li muy def bu xamee ni itam am na lu koy dikkal loo xam ni bu dee ànd ak nit moo xam góor la wala jigéen dinañ xulóog moom te du ko tey bu loolu ñëwee dina téye boppam xam ni muy def ñu ngi yem foofu dinañ ci gën a continuer ba mu gën a yaatu ndax du lu ñu mën a wax ci benn jalaay wala ñaar wala ñett wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf